képp moo leen dese ngir daal di euh, teggat li nga xamante ni nag euh, moom moo di yàqu-yàqu yu caterpillar bi daal di amal. ay booru fukki waxtoog benn ci guddi yi la waa Descos ànd ak polis euh, daal di dindi seeni barabu liggéeyukaay yi. ci ëllëg gi nag naqar lañ fa daal di nemmeeku. dañ jékki-jékki rek caterpillar yi ñëw ak seen camion daal di daaneel marché bi yëpp benn morceau desul yëpp la ñu daaneel ci yëpp la toj ndox maa ngi nii di couler un peu partout. waaw ñoo ngi toog ñoo ngi toog di xool situation bi rek di di xaar yàlla. mais gars yi dama ñëw ne leen carrément nan ma xaar ma génnee bagage yi non taxaw naa ak euh, xale yu góor bari pour ñu gàpp ma bagage yi non waa ji nee ma avancé la jugal fii. olandaraan bi nu mu dóoree te kon laata bi cent cinquante mille la gindee amul sax cinq jours. ñu daal di xëyee ndaxte ba set ba léegi ñoo ngi taxaw euh, defuñu dara naam nag mairie bi euh, da leen daan fayeeku weer wu nekk. d'habitude on paye que les trois mois chaque mois sept mille donc sa fait. 21 000. maire bi nag euh, diggoon na leen dina leen wutal ay barab ñu daal di fay liggéey euh, ci kaw ñu daal di euh, jóge ci quartier bi wante. gars yi ils ont su ne ne cimetière yi ak dem di fa jaay yàpp dafa xaw a góos tuuti ils ont pu dañu xaw a ragal après léegi affaire boobu jàll ñu toog nag di muñ di xaar. bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di boucher yi nag ku am tur. moom moo daal di woo ñi nga xamante ni ñoom ñooti njiit yi loole nag daal di wundu marché bi ñëpp lañ fa daal di jëlee kii rek moo fa des mébét bi moo di seen client bañ a dem feneen meeru quartier bi nag digg na waa quartier bi dina leen daal di gis tey ci guddi ñu nit bëggoon nañ jot maire bi Bamba Fall wante bañ ko woowee mujj ñu ko jot